jërë ngeen jëf mbokk internet yi Ousmane sonk nag jamono jile mu ngi ci réanimation foofu ci l'hôpital principal nga xam ne foofu la nekk euh, Ousmane Sonko le président sonk Sonko admis en réanimation xibaar bi nag Sénégal joxe ko nangoo ko ci ki nga xam ne moo di El Malick mi joxe alerte bi euh, moom El Malick Ndiaye nag ci compte Twitter mu ne nag euh, mu ngi ñi ngi xibaar ci askanuk Sénégal waaye tamit ci askanuk biti réew que ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko jamono jii de mu ngi sa service réanimation yu nekk ca l'hôpital principal euh, bu Ndakaaru gannaaw malaise boo xam ne nag am na ko ni ki démb ci ngoon euh, loole nag mooy xibaar boo xam ne euh, ki nekk secrétaire national à la communication bu parti di dissous xam na ko nekk tamit vice président bu commission euh, communication bu coalition Yewwi Askan Wi xam ne seen parti boo woon di passé foofu la euh, bokkoon moom nag ba tey muy euh, fàttali rek nee na mu ngi xam ne kii di Ousmane Sonko ci résistance bi nga xam ne nag moom la. Euh, doon amal euh, ci injustice bi nga xam ne ak euh, l'arbitraire bi nga xam ne mu ngi daanu ci ndoddam mu ngi woon ni ki tey jëlee ci alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août 2023 ce jeudi 17 août 2023 ci fukkeelu fan ak juróom-ñeent 19e jour de grève de la fin yi nga xam ne nag moom Imam Malick Ndiaye ci kàddu nee na régime dictatorial bu njiitu Macky Sall ñoo ko imposé lu ni mel waaye nag fàttuwul benn yoon nag euh, tenir maanaam euh, tenir ki nga xamante ni mooy tenir responsable euh, ci lépp loo xam ne mën naa dal njiital seen parti bon Pastef di Ousmane Sonko lépp lu ko dal rek moom daal ne leen duñ ci génnee responsabilité ki nga xam ne moo di le président Sall ak ki nga xam ne moo nekk ministre de la justice waaye tamit ki fi nekk ministre de l'intérieur ak bépp acteur boo xam ne daanaka laale nga ci persécution inhumaine Euh, bi nga xam ne nag dem na ba jamono ji li euh, mettre la vie de chef de du chef de l'opposition en danger muy kii di sonko Sonko ah, moom El Malick ba tey tëjee kàddu bi rek ne mu ngi woo askanu Sénégal les militants sympathisants euh, ñu nag sàkku ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu libeere ca na mu gën a gaawee ak sans condition kii di président Ousmane Sonko waaye tamit képp kuy détenu politique Euh, kon mbokk yi loolu moo nekkoon xibaar bu ñu leen indiloon mu mel ni kii di Ousmane Sonko njiital parti bi di Pastef jamono jile mu ngi ca service de réanimation yu nekk ca l'hôpital principal bu Ndakaaru gannaaw manège boo xam ne nag am na ko ki démb ci en tout cas loolu mooy xibaar bi nga xam ne euh, kile di El Malick Ndiaye nekk secrétaire national à la communication bu Pastef euh, Pastef di su xam ne na ko di fàttali rek ne moom Ousmane Sonko mooy mu ngi ci 19e jour de grève de la fin gannaaw arrestation ak euh, mandat de dépôt bi nga xam ne euh, teg nañu ko gannaaw bu ñu ko tegee loxo le 28 juillet bi ñu génn euh, foofee ca cité kër góor gi ca këram ak huit chefs d'équipage